na ci ba tey mooy fitatu shahawaat ñaari ñaari chiin yi nga xam ne Ibnul Qayyim day wax ne moytu leen ñaari chiin mm-hmm. ñu ne ko yàlla mu ne subuha shahawa ñaari chiin mooy moytu leen lu ko yàqal nit mooy subuha ay lënt nit koo xam ni foo fekk ay lënt lay wër même nit ñi da nga gis xam ne masala masala yu raar rek lay laajte mm-hmm. masala yu raar yi leer nañ ñaan fi te mm-hmm. moom sa amaana leeru ci boppam mais leer da ko fi bàyyi pour ñu ne gëstukat la borom xam-xam la wala moom mi ngi yëg wala moom mi ngi jokkoo borom xam-xam masala yi xaw a leer da koy bàyyi moom day fekk ci misaal masalatu zihaat hmm. ñu ne góor boo xam ne dafa ñëw ne borom këram wala góor gu ñëw ne soxnaam su ma naratee sëy yàlla naa sëy sama yaay hmm. xam nga boobu boobu àtte bi foofu la ba moom bàyyi da ñëw naan la waa léegi bu fekkee jigéen moo ne borom këram su ma naratee sëy yàlla naa sëy ak sama papa nag hmm. moom li leer bi day xool contraire bi nu mu lëndamee mu jëm ko indi toujours noonu la huwa allazi nazzala alayka alkitab hmm. la yàlla wax yàlla moo wàccee ci yow téere téere boobu lan moo ci nekk minhu ayatu muhkamat hmm. hunna ummul kitab wa uxaru mutashabihat hmm. aay yoo xam ne yu leer naññi la yu leer yooyu ñooy cosaanu livre mais am na aay yu lëndëm yu lëndëm yooyu amma lazina fi qulubihim zaygun fa yattabi'una ma tashabaha min ngir ñaari mbir ibtigaa al fitna wa ibtigaa taawili wa ma ya'lamu taawilahu illa allah yàlla nee na aayu leer yi ñu ngi fi ak yoo xam ne dafa xaw a am lu ci lënt te yu lënt yooyu lëntul ci ñëpp dafa am ñum lënt seen bopp hmm. mais ñi jàng leer na seen bopp lëntul seen bopp léegi bu lëntee sa bopp lan mooy condition bi hmm. mooy fasalu ahla zikri in kuntum laa ta'lamuun dellul ci ñu ko xam ñu xamal la ko comme yow xamoo ko daa lënt sa bopp noonu la Ibn Abbas waxee hmm. kon am na ñu mu leer seen bopp ñu mën ko leeral fasalu ahla zikri soo demee nag ñoom ñu leeral la léegi bu ko bu ñu ko leeralee rek mu leer waaye borom am na ñoo xam seen xol dafa feebar ñu seen xol feebar lan la ñuy def fa yattabi'uuna maa tashabaha minhu ñoom yonent yi la ñuy topp ngir nag ñaari bi ibtigaa al fitna taal fitna ibtigaa at taawili ak di ko di ko wëlbati wallahi am na ñoo xam ne hmm. boo leen dégloo suba ba liñ nekk mooy wëlbati ay yàlla jublu ci fitna rek lañ ci hmm. loolu moo tax yonent bi alayhi salatu salaam mu ne ci hadis Aïcha bi nekk muslim iza ra'aytumul lazina yattabi'una al-mutashabihat fahzaruhum ulaika allazina samma Allah su ngeen gisee ñuy topp yonent yi moytu leen leen na ngeen ñooñu la yàlla tudd mooy fitnatu achahawaat mooy euh, fitna yi bànneex am koo xam ne ñàkk a mën a maîtriser bànneexam ci bu gisee alal bëgg koo jël mënatul maîtriser fa mu jël jël mu moomut loolu ko sonal loolu ko sonal maîtriser wu bànneex yu bëri fi nekk yëpp muy bànneexu alal bu gisee alal jum xam ni te nañ ko ci loxoom mu sànq ko def ci bànneexu bakkanam suñ ko dénkee mu def su lebee du fay bànneexu euh, biir muy lekk moom lu mu def ba am lu mu lekk baax na bànneexu jigéen bànneexu sëy bànneexu euh, taaru aduna jaral na ko lu nekk-nekk loolu kooku bànneexam moo ko sonal léegoo-leeg lamb ji mooy tax bi julli ji di leen jàkka ja léegoo-leeg match de football bi la léegoo-leeg programme bi am moo ko yitteel ba yow koy sadd an zikrillah hmm. ñoo koy sadd ci tudd yàlla bokk na ci ba tey mooy fitnatu as-salihin hmm. mooy yàlla natt la nga nekk nit ku baax wala ulama nekk nit ku baax wala nga am xam-xam am na koo xam ne tey li ko sonal mooy xam-xam bi mu yor loolu mooy fitnaam xam-xam bee tax ñu koy saaga xam-xam bee tax bu ubbee portable am ñu koy menacé xutba bi mën nga ciy waxal conférence bi mën nga ñun ngay gaaruwaale ainsi de suite di yónni ay nit joxe ñu koy woo di ko saaga di ko menacé hmm. léeg-léeg mooy tax mu ñëw fekk oto bi sax ñu koy jiital toj fa ay nen sànni fa ay deret bopp ginaar tànk ceeli yëpp ñu ko fay de pour lan tiital ko lan la mooy xam-xam bi ne ci moom li muy jéem a baax ak bëgg a baax la ñu ne ko doo ko fi defee loolu moo nekk fitna ci moom ba ay nit may ñu ko jàmm loolu moo tax léeg-léeg ay nit jënd émission émission jënd émission rajo saaga ko jënd émission toog sosal ko yàq deram ngir lan ngir xam-xam bi ne ci moom xam-xam boobu moom moo mujj nekk fitna fitnaal ay nit ci moom ba ñooñu mu jaral leen lu nekk mooy xam-xam bii ne ci moom ak leer li muy jàllale na ko bàyyi su ko bàyyi dina sonn dinañ ko sonn loola tey am na tey mm-hmm. loolu moo tax yonente bi alayhi salatu salaam mu ni biñ ko laajee ci xadis Saad bin Abi Waqaas bi ci Tirmisi ci taale bu wér ayu naasi ashaddu bala mm-hmm. kan ci nit ñi moo gën a métti nattu xaal al anbiya summa al amsalu fal amsal mu ne yonent yi topp ci ña gën a mel ni yonent yi maanaam ña gën a baax gën leen a jege topp ci ña ci tege mu ne fa yubtala fa yubtala rajulu ala xasabi diini nit ki dañu ko natt selon fu diineem toll fa in kaana diinuhu salban istadda balaa u mm-hmm. su diineem dëgëree natt bi day gën a métti nee na in kaana fi diinihi riqqa ubtuli ala xasabi diini su diinam woyofee natt ko woyofaayu diineem fu mu toll mu ne fa maa yabraxul balaau bil abd natt du dëñ di topp jaam ñu koy natt ñu koy natt hatta yatrukahu yamshi ala al ard maa alayhi xatia yàlla dina téye jaamam di ko natt natt yi tegaloo ba muy dox ci kaw suuf amatul bàkkaar fekk natt yi ñoo raxas bàkkaar ci moom